gannaaw bu nu sante yàlla nu màgg mi subhanahu wa taala ci ay xéewalam yu bari di beesal sunu jébbalu ci moom di seere ne moom rek mooy buur te moom rek la war a jaamu gannaaw loolu e, dafa am ci alquran yenn saar dong woo xam ne yàlla dafa bëgg jullit ñépp mokkal ko kenn bañ a def jullit ñu ak ñu jigéen ngoog wenn saar dong la ci nag yeneen saar yi topp mokkal bi mën naa nekk sunna mu nga mën naa nekk sunna waaye waaye li nga xam ne saar yi nga xam ne moom mokkal gi daal moom mun ta ñàkk yàlla daa santaane jullit bu nee na ko mokkal moo xam góor moo xam jigéen te it na nga ko mokkal bala ngaa mat mukallaf li mat mukallaf mooy boo amee fukki at ak juróom wala nga am kawaru poqsaar wala kawaru naq wala nga génn ci lu mel noonu loolu mooy màndargay ñu ni ci mukallaf la balaa nit cee mat mukallaf na mukkal saar woowu moo xam góor la moo xam jigéen ndaxte saar woowu dafa aju ci julli sans borom yàlla dafa farataal julli ci képp kuy ab jullit moo xam góor nga moo xam jigéen ba noppi nag saar woowu mu santaane julli gu ne bu sa ne des ko ca ba noppi xamal nu ku ko sariwul ci ab julli bu dee ab rakkaa rakkaa boobu baaxul sayidna muhammad sallallahu alayhi boo xam buxaari génn na ko Ababacar euh, Saamit wax na Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli te tariwoo Fatiha sa julli baaxul kon ba Fatiha mooy saar bi nga xam ne képp ku julli moo xam julli julli jural moo xam goog yalu moo xam goog naafila moo xam goog farata képp ku julli rakkaa rakkaa bu il faut nga ca Fatiha mënta ñàkk kon bu julli nekkee farata. فالفاتحة نكتب نصريتا سرطة فالنفاتحة موقع الجديد دال دينك سرطة آه. أيها المسلمين إن هذا يدل دلالة واضحة على مدى أهمية هذه السورة أهمية تفرض علينا فهم معانيها والإلمام بمحتوياتها وقت جيد الجنان تخبنا موقع الفاتحة نون لدون فرطة سجل البنى te itam kuy julli rakka bu ci ne da nga caa waasaru fatiha loolu dañuy won na kon ndekete mokkal fatiha doon na lu am solo te itam loolu day waral ci ñun ñu xam li fatiha ëmb kon boog danoo war a xam li fatiha ëmb lan la nekk ci fatiha ci ay maani dañ koo war a xam فما كان فيها من عقائد عقدناها في قلوبنا عقيدة جازمة وما كان فيها من اوامر ربانيه بذلنا الذهن في تحقيقها وتحصيلها والاستمار بها. بكرة نخم نكوي جلي لسان فاتحة بش بلك كفاتحة جنية سنة يخمو لمي كتي سنة الحمد لله رب العالمين خمو لمي فيه سنة ملك يوم الدين خمو لمي فيه سنة اهدنا الصلاة المستقيم خمو لمي فيه te loolu nga di ko def ay ati ati at fukki at ñaar fukki at ba léegi am nga génn fukki at mbaa am nga lu ko ëpp loolu sàggante la te it wóorut faatiha ginnaaw noonu la yàlla bëgg nu mokkale ko noonu noonu la ko fonti ba ne julli bu ne rakkaa bu ne nañ ko ca tari loolu li muy tegtale mooy faatiha dafa am solo lool am solo boo xam ne danoo war a xam li faatiha ëmb bu ko defee li mu ëmb lépp ñu xam ko lu ci di ay fas-fas yoo xam ne yàlla daa bëgg ab jullit fas ko nu fas ko fas bu dëgër te gëm ko te bañ a gëm lu wuute ak moom lu ci di ay ndigal yoo xam ne yàlla da koo santaane te daa bëgg ko def ñu mën koo def وما كان فيها من وعود يا أيها المصلي لربه عرفنا هذه الوعود وأوفينا بها وما كان فيها من دعوات وحاجات يطلبها ففكر بي saar wi dafa am lu loo ci dig yàlla yow ñu koy tari bu fekkee am na loo ci dig yàlla nga xam ko la nga ba def ko as gor bu digee doo koy def ab jaam bu taxawee fi kanamu boroomam dig ko dara da caa war a xaw ci def ko na mu waree ndax ñàkk gaa def sit na mën na caa bàyyi ci adduna ak ci àllaaxira kon bokk Faatiha dañ ko war a xam lu ci nekk ci ay ndigal ñu jëfe ko bu ci ay fas-fas nekkee nu fas ko bu fekkee am na ci loo xam ne dañ koy wax te muy luy dig yàlla nu fexe ba def ko bu fekkee ak ñaara ngi ci boo xam ne dañu koy ñaan ci biir fatiha xam ne ñaan gi mi ngi ci bi nangam la nu boole ñaari yëpp buñ koy ñaan ñu ñaan ko ñaan yi bu sérieux ba nekk buñ fa jógee dem sabab lu jikoo sabab bu wóor parce que bu la dara itteelee nga bëgg ko ba tax nga di ko ñaan bu yem rek ci toog bi wax yàlla may ma nangam da ngay boole ñaan ko ñaanin wu sérieux ak dem sabab lu ji ko noo koy ñaane ñaanin wu sérieux mooy sa làmmiñ bañ jaar rek ci baat yi te jéemoo xam ne yàlla ngay waxal euh, euh, fan yi jan yooyu am sañ di ma sañ di ma tawat ay jafe-jafe wala euh, léeg-léeg am na ci yoo xam dama wax ndax mos leen a wax ak yàlla ñëpp ci dem dañ ma ah déedéet mosumaa wax ak yàlla mu ngoog te ah kay dañuy wax ak yàlla te te ko waaye kon loolu mooy maanaam waxuñu yàlla dañoo jaar rek ci eh, aaya yi aaya fatiha rek comme ni kaset bi di jaaree ci alquran bi waaye waxuñu yàlla ndax wax ci xol bi la ne eh, mu nga fuaadi wax ci xol la ne làmmiñ nag da koy tegtal rek bu ko defee kon booy ñaan dara da koy wax ci kaw làmmiñ sa xel nekk ca nga jublu koo ñaan boo fa jógee dem saw lu ji ko bu fekkee ne dangaa bëgg aw fas nga toog rek naan yàlla yàlla may nga mayu fas yàlla nga mayu fas ndax waroo boole jóg jóg jóg euh, jóg jóg sablu ji ko hankay ah, bu fekkee dangaa bëgg gerte gu yaatu gu bari ci nawetu ren nga toog naa yàlla yàlla nga may gerte gu yaatu yàlla yàlla nga may tool bu nangu yàlla nga may tool bu nangu yow ruujoo ah, ruujoo jiwoo nit ñi ji jiwoo bayoo ba bayoo bayoo bayoo ab ñoŋali raadu woo toog naa yàlla yal nag may gasab yaasu rek kon looy def da ngay fontu li ngay ñaan yàlla dangaa war a boole ñaan ko ci saw làmmiñ fas ko ci sa xol nar ko waaye dangaa war a jóg dem tamit sabab lu ji ko ومن أجل هذه الأهمية البالغة فإننا نطلب من الله تعالى بفضله ورحمته وكرمه أن يوفقنا في تفسيرها وإبراز ما يصل إليه علمنا فاتحة nag noonu mu amee solo noonu mu amee solo xam ne kon dana war a xam li ci nekk bu ci ay ndigal nekkee nu xam ko te jëfe ko bu ci ay pas-pas nekkee yàlla ne gëm leen nangam nu gëm ko te bañ a safaan ba bu ci ay dig ñi dig yàlla nekkee nu xam ne lii noo ko digee nu def ko bu ci ay ñaan nekkee ñu ñaan ko noonu ma wax ne moom la ñu war a ñaan ginnaaw noonu Faatiha amee soxla solo te bu koy ju sari euh, bis bu nekk ci julli yëpp loolu moo taxoon ma doon ñaan sa borom yàlla di toroxlu ci moom ak sunu réer ak sunu bakkaar yu bari waaye mu di ko jébbalu di bu ci xam-xamam di ko ñaan mu tawfiqal nu ba nu mën leen a firil saar woowu di suuratul Faatiha ba kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci yéen bu dee julleeti bu dee lu muy tekki laaye ji mu wax xam lu mu ëmb ak la ca nekk ndax loolu matu ko mat na ko lool am ci yàlla وإبرازها يتطلب مجلدات وأسفارا ويتطلب قدرا كبيرا وكعبا عاليا من المعرفة والعلوم الربانية والقلب المليء بالتقوى فالمتقون يعلمهم الله وكذا فانا ني دادي بو سي لول مو خامني فاتحه خام خام بو بري xam-xam bu baree ci la boo xam ne bii euh, ki koy ki koy bëgg a génne xam-xam yooyu ak ni mu bare laaj na mu doon li mu laajoon dëgg-dëgg mooy taalif ay téere yu bari Faatixa li ci nag ay xam-xam ko bëgg a génne lépp ngay taalif ay téere yu bari yoo xam ne ci ci ci firi Faatixa lay doon te kan koy taalif wala kiy génne li nag ci Faatixa ci ay xam-xam laaj mu doon ko xam ne am na xam-xam bu bari am na dajor wu kawe kawe kawe ci borom xam-xam yu mag yi la bokk te itam laaj na xol ba fees delle ku ragal yàlla ndaxte ñi ragal yàlla yàlla di leen di jàngaleel boppam ñun nag xam nañ ne yooyu amul ci benn du xam-xam ba du ragal yàlla ga du njub ga waaye nag yërmande yàlla la ñu yaakaar te moom la ñuy ñaan ndimbal mu bañ noo topp ci suñu melokaan waaye mu sagal nu dimbali nu ba li nu bëgg nu def ko te mooy ñu leen ba nga xam ne daanu mën a leeral lépp lu ma mën a leeral ci li nekk ci suutu fatiha ci ay xam-xam ndax ñu jëriñoo ko ndax ngeen jëriñoo ko ndax bu ngeen di julleeti taxaw si kanamu yàlla di taru fatiha ngeen xam li ngeen di wax lan la yàlla ñu ci yàlla dimbali عندما نريد تفسير هذه السورة العظيمة فإننا سنجد أن المولى جل جلاله بحديث من أحاديثه القدسية قد لخص لنا تفسيرها تلخيصا رائعا يجلي لنا الكثير من العلوم التي تحتوي عليها فقد دافا بندق بون جوجي جيم سي فاتحه بكو فري داني غيسنا امنا سي حديث ينتج صلى الله عليه وسلم من خامن سي بروامم لاكو صلو الحديث النار لا الاحاديث النبويه والاحاديث القدسيه الاحاديث النبويه مو حديث يخمنه yeneen tuddee ko wax waaye da koo nekk li muy wax yàlla ahadis kurse yooyu daanu gis ne am na ci ab xadis boo xam ne tënkal nañu fatiha tënk na li nekk ci fatiha wala boog tënk na lu bari ci li ci nekk ci ay maani ak i xam-xam ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم واللفظ له وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده والإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث بابو رحمنا يننك بالنانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شنو برم يلا موقع حديث بابو مسلم أنجنه te lafz بقى ñuy إن شاء الله ما ينكم مسلم واحد waaye bi muslim rek ko andi asxaabu sunan abu daawud tirmidi nasai ibnu maaja kenn ku ci ne andi na ko al imaamu ahmad ahmad ci musnadam andi na ko al imaamu malik ci muwatta andi na ko xadis boobu mi ki ko solo ci saxaaba yi mooy abu hurayrata radiallahu anhu abu hurayra dafa wax ne dégg naa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne saa borom yàlla nee na سدل لنا جلي سما ديجن سير سما جان دي نياري سير كسما جان دي لما جال نيان دما كوي مي الله سمت الصلاة بيني وبين عبد مثلي سد لنا جلي كساق الصوف من يسجل صوت كار فاتحة قلني لنا إما جلي لك دكو تنكري في الفاتحة الفاتحة دفع أم صلاة بمن نمو جلي لو مجاز زي كده وقت إطلاق الجزء وإرادة الكل فوت دفعت حكت فوت بجلي ولا بق إطلاق الكل وإرادة الجزء عكس بلا إطلاق الكل وإرادة الجزء جلي أمنا فاتحة أمنا وسار أمنا ركوب سجود وايا برام أسمان السوف موم جلي رك لوقت فاتحة لك جلي دفني فاتحة جلي تلك جلي séddale naa ko sama digganteeg sama jaan bi julli ñaari cër te itam sama jaam bi am na ci lu may ñaan te loolee mu may ñaan dinaa ko ko may ah kon nag ndekete ci fari fatiha ji am na ci lu mu ñaan yàlla te yàlla nee na dana may gis ngeen yàlla goo ñaana goo waaye yàlla nee na bi ngay julli yi fari fatiha li ko nar ñaan ci fatiha ji nee na dina la ko bay nee na fatiha a ko bokk nee na fatiha ji moom yéen ko bokk am na ci lu mu moom moom yàlla màgg mi ak loo moom nee na nag yow li nga ñaan la te nee na ñaan googu dina la ko li yàlla moom ci fatiha mooy lan li jaan bi moom ci fatiha mooy lan suñu borom yàlla wax ni sama jaam bi bu dee julli bu kàbbaree bay tari bu nee alhamdulillahi rabbil nee na dama na naan sama jaam bi de mi may sant ah kon nag yow ñu julli boo ne alhamdulilahi rabbil alamin na nga teewlu ne da ngay sant yàlla bu ci jaar mukk jaar bu gaaw te xel mu nekku ci ne da ngay sant yàlla yàlla nee na boo ne alhamdulilahi rabbil alamin saa man saa borom man borom ma ni sama jaam baa ngi may sant boo ne arrahman arrahim bu jaar bi ne arrahman arrahim ne sama jaam baa may tagg ndeke danoo war a tagg borom bi subhanahu wa taala ci fatiha ak ci julli ko lay waxal da nga ne alamin da ngaa nekk ko sant boo ko waxee it yàlla am lu mu wax ndekete bi ngay wax ci fatiha yàlla ngi wax ak yow te yow déggoo ci dara boo ne alhamdulilah alamin mu ne sama jàmm day nga may sant boo ne arrahman arrahim a ne sama jàmm day nga may tagg ah tagg yàlla kon na nga ko jublu ko yow ngay julli di ko tàmbale ci julli jii mu fii maa ngi dee sari ngeen di dégg bu ne alhamdulilah rabbil alamin yéene leen ne yilimaan a ngi sant yàlla ci làmmiñam ak ci seen làmmiñ yéen yépp ngeen yéene sant boobu bu ne arrahman rahim ngeen yéene ne yilimaan a ngi tagg sa borom yàlla ci aw ci ci turam ak ci seen tur yéen yépp yéen ñi dégg yéen ñi ànd ak moom julli gi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su jaam bi ne maliki yawmi diin wala maliki yawmi diin yàlla ne sama sama jaam bi de mi ngi may màggal ah, waaw sama jaam bi de mi ci man ay mbiram malik ak malik dañoo bokkul malik yawmi diin mooy ci moom mbir yi boo ne malik yawmi diin mooy maanaam yow yàlla yaa moom mbir yi bis yaa moom lépp àdduna ak àllaaxira kon boo waxee loolu kon jëlal ñu mbir yépp ci moom bu fekkee da jàng ci riwaay yi wax malik malik mooy buur boo ne yàlla mooy buur adduna ak àllaaxira kon bi nga nee maliki yow nit diini kon da koo ko màggal mu nga kon màggal nga ko te itam joyal nga ci moom mbir yi moo tax boo ne maliki yow nit diini yàlla na sama jàmba day nga may màggal kon nag moo xam bu ilimaan bi ne maliki yow nit diini ngeen di dégg wala yéen ngeen di julli julli yàlla wala biral ci yéen rek bu ngeen ne maliki yow nit diini da xam ne da ngeen di màggal yàlla li muy tekk mooy ah, yàlla mooy ci moom bis penc bi te moo moom sama adduna mu ngoog bu fekkee maa yi nga jàng nag ba tey mooy doyal naa mbir yépp ci yàlla moom mooy boroom lépp mu ngoog su ko defee yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su jaam bi ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saa borom day wax loolu nag moom maag sama jaam day ko bokk aha am na ci lu ma moom am na ci lu muy sàkku te li muy sàkku nag defal naa ko waaw muy sàkku li yàlla moom lan la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 daa am lu la ci sant loolu lépp xalsat nañ ko leeral bu ci yàlla àndee yàlla yàlla may tawfiq bañ leeral ko ci bu dul xutba bi xutba bi ci topp insha allah taala yàlla yàlla defal tawfiq وفي هذا الحديث القدسي الشريف نرى أن سورة الفاتحة تحتوي من بين ما تحتوي عليه على الأمور التالية ما تبكي حديث بي من نمشي جيسي فاتحة أمنا أي مير يبالي وأي يمو أمو day bokk na ci juróom بن mbir yi أولا نجد فاتحة أمبنا dagat fatiha ëmb na ثانيا فاتحة أمبنا تقي يلا ثالثا فاتحة أمبنا مجل مجل يلا أكنكو رابعا فاتحة أمبنا جويل سمير يفتك يلا خامسا فاتحة أمبنا لو خمنا يلا نينا ياك موم كو يو جامدي أمنا لوم سي موم أمنا لو سي موم دي كو ساكو تلولا ماينا لكو سادسا فاتحه امنا ان نانغو سي نان لول امنا سي فاتحه سي سا لول يين رك لا ايش ايها المسلمون هذه ست خصال قراناها في الحديث نقلها من السوره وفي السوره معاني اخرى لم يذكرها لانه يلخص mbakk julli yi di doon benn mbir a ngoog ngoog yoo xam ne xadis bi indi na ko jëlee ko ci suurtu te du fatiha loolu rek la ëmb waaye xadis moom ginnaaw day tënk loolu moo tax loolu la ci jot a tënk وعلى كل حال فإن أول درس نتعلمه في السورة هو أن العبد عندما ينادي ربه في الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن يجب أن يحرص على هذه الخصال وعلى كل حال لي جك جانج درس لي جك جانج في سورة فاتحة مودي جان بودي واحد برامم moo xam day day julli di fari fatiha wala ñu jàng leneen ci alquran lu bokk ci fatiha ci biir julli bi wala daa daa daa jublu fan ku yor yor ay baaraamam wala kuus di dikk wala muy jàng alquran war na xir bu baax a baax a baax ci mbir yi nga xam ne fatiha andi na ko te mooy mooy ban ak ban الحمد لله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى خير بباها باقي دي سمت يالله في خير في خير دي بالي خانم مو لني دفل te mënu koo lim xamul nu mu day kuy képp kuy julli na fas ci xolam ne daa war a boole ci julli gi sant yàlla bu baax buy zikr buy jàng alquran na fas ne da cee boole sant yàlla bu baax ci xew li bari mi defal ci xew li xamul ndax nu mu day ndax bari gu bari ah wasanaa alayhi li annahu al ahlu lil sanaa tey itam ne war naa fas ne day tagg yàlla war na ab jullit buy julli wala muy jàng wala muy zikr war na caa xam ne da cay boole tagg yàlla ndaxte yàlla mooy ki yeyoo tagg ndaxte moom mooy ki nga xam ne lépp luy lu baax lépp luy aw yiw ci moom la bàyyi ko te lépp luy xéewal ci moom la bàyyi ko te yàlla moom day xéewal ñi ko yeyoo day jox ay xéewal ñi ko yeyoo ak ñi ko yeyoowul yàlla day fekk bi yéefar bu koy weddi mu di ko jox ay xéewal jullit ñi ko gëm mu ngi di jox ay xéewal ñi nga xam ne ñi jaamukatu yàlla yu baax lañu dañoo góorgóorlu ci jàkka ñu doon ay jàmbaari jaamukatu yàlla mu ngi di jox ay xéewal ñu sàggan ñi nga xam ne dañuy toog duñu julli ak ñi nga xam ne ñi dañuy toog ci seen bureau xëy julli suba dem ca bureau ba toog fa ba bala ñoo julli tisbaar ak takkusaan ak timis dañuy bàyyi ba ñibbi seen kër gee jot ñu ne dañuy fay tisbaar takkusaan timis xamul ku leen ko lebal xéewal yàlla nga leen di ubbil ay bunti xéewal ñu sàggan ñi toog ci grand place yi fasturé yi bu jàkka di nodde ñu toog rek di di welaxu mbaa fa ñu toog amuñu benn ngànt bu leen tee dem jàkka ja waaye dañuy rëpp seen loxo ci suuf di tiim daal di jëm julli julli bu bon a bon teewul kat yàlla nga di jox ay xéewal yàlla xéewalam kenn mënu koo lim day jox góor ñi di jox jigéen ñi di jox mag ñi di jox gone yi di jox jiw ñi di kooku mooy yoo tànn ah. suñu borom nee na lépp lu nekk ci yéen ci ay xéewal rek maa leen ko defal. wa maa bikum min ni'matin fa min Allah. te suñu borom yàlla wax na dëgg wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dana xéewali yàlla yi su ngeen ko bëggee lim mun ngeen koo lim te itam daanaka joxe ci ay answer sax xaju fi ndax kon xutba bi dee weesu waxtu mu war a am loolu lépp nag tax na ba moom mooy ci yeyoo aw tagg moo tax yàlla dañ koo war di tagg kon boog dee leen tagg yàlla ci bu ngeen dee julli ak bu ngeen dee dikr ak bu ñaan ak bu ngeen dee jàng alquran na ñuy tagg yàlla dana xam ne arrahman arrahim tagg yàlla la لا درس إن شاء الله وكذلك الحرص على تمجيده تعالى ونفي وننو في مغلقو كنكو يلا دف كوي مغل دف كن بين أيام رحم النبي صلى الله عليه وسلم مغني كي جانجل من مغل يلا اك ني كن اللهم رب السماوات السبع يو يلا يو يا يا برا اسمان جوم والارض يا سوسي ورب العرش العظيم سيوي يا بروم عرش بمجة ربنا يوم يخبنا يا ضموم ورب كل شيء انت يا مملك فالق الحب والنوى يوم يخبنا بيكتي بي بجي بنجي يسن جوية يو يا دم سخلطه أب أب أب جخوي بدجي كبير بقى بياكل سخل سخل يعني سيا اللهم أنت الأول يو يا الله يا سنة كن فدرني فلا تقبلك سيدر جيت ولكن وانت الاخر يا اخي انك في دار نقتو نغو دار دار بيو سغناو وانت الظاهر يا سيتي كو نيب يا دمي نين نيب كان سيتي ولا كو وانت الباطن يا يا دير بكن من لا جيس نغو يوي ييب اي نيان نعم لي جوغي سي نانت صلى الله عليه وسلم اك يينن اك يينن يو خامني دا يين دا فاي كان دا تاد yenn yi da koy màggal yenn yi mu ngoog yooyu yëpp rek jullit bi dafa da ca am aslaf te buy toog ak borom bi wax ak moom mu jël ci ñaan yooyu te di sant yàlla te di ko tagg te itam di ko kañ te itam war nañ ci jële ci hadith bi ak fatiha jëlal bu ñu war a jëlal suñu mbir yëpp ci yàlla mag mu subhanahu wa taala ah وهذا التصويب امر عظيم من امور الدين ونعمه كبيره من نعم الحياه. قال سيندر ci yàlla ci la ñuy jeexale xutba bi insha allah ngir mu am solo la ci mbiri diine ji te itam lu am solo la ci suñu dund ji dee mbir ci yàlla mooy lan aha وأنت ربما تحتاج إلى أمر من الأمور وربما ترى أن احتياجك إليه احتياج شديد لا بد لك منه وعند هذا فإذا كانت هذه الحاجة غير محرمة فإن عليك أن تجمع بين أمرين فالأول طلبها من الله جل جلاله والثاني التسبب والسعي الجاد في سبيل تحصيلها bu ko defee gënal sa mbir ci yàlla mooy nga ba nga nga bàyyi sa mbir yépp ak yàlla daal ni ndax nangu ngeen loolu ndax yàlla dañ ko war a def ab jullit daa war a bàyyee mbiram yépp yàlla subhanahu wa taala wóolu ko te gëm ko ab jullit day wóolu yàlla ab jullit da koy gëm te da koy bàyyee mbiram yépp waaw nooy bàyyee sa mbir yëpp yàlla ndax mooy maanaam da ngay toog ne yàcc yàccaaral déedéet dafa am ñu koy koy defee déglu leen ma leeral leen ñu koy defee ni ngay bàyyee sa mbir yëpp yàlla mooy yow da nga am soxla boo amee soxla soxla si da ngay xool ndax dagan na wala araam na bu dee soxla su xaraam bu ko def mukk bu ko wut bu ko ñaan lu xaraam kenn du ko ñaan te kenn du ko sabab. waaw damaa bëgg a rey jiw ëpp naa def ëpp naa def jigéen joo xam ne ji moom daa bëgg ñu fase wujjëm ab seen tas loolu dafa xaraam ëpp naa def soxla su xaraam daal bu ko am mukk boo ko amee boo bu fekkee seytaane man na la ba nga am ko daal di say génn ko sabab lu te bu ko ñaan kenn du ñaan lu xaraam bu fekkee soxla si xaraamul nag kon ñaari yëf nga war a boole sox am nga soxla si soxla si xaraamul nit ki da ngaa bëggoon te ren daal da ngaa bëgg dugub ju bare bare bare bare yoo xam ne dañ ci mën a dund dundal seen njaboot ci at mi lépp ak gerte gu bare bare bari goo xam ne dañ ci mën a dañ ko mën a jaay faj ci say soxla loolu soxla su dagan la ñaar yi li ci war a boole bu njëkk ba mooy ñaan ko yàlla xamal ne nawet yàllaa ko yor te yàlla mooy maye te kum jox kenn mënu laa xañ te kum xañ kenn mënu laa jox loolu da koy fas bu ko defee nga yàlla tàmbalee ci sa boroom sant ko ci la jot a may ci ay xéewal ndax ku la may ba tay bo amé soxla diko ko ñaanaat tàmbaleel ci jëk ko sant ci lam la mayon bu jëk tek ci nak tag ko ci ak mbaaxam ay mbaaxam yu bari tek ci magal ko kañ ko yalla da bu ku koy kañ ba nekk nga ñaan ko la ko soxla mu ngok té bay bo nga lu koy tan say bakkar ndax bàkkaar yi mën galan ko ñaan gi té julli ci tan bi sallallahu alayhi wa sallam door a ñaan so ñaané bu nak nak yalla yalla nga may gerte gu bari ak dugub ju bari bu sa yam da dama sarap lu ji defal lépp loo man pour loolu nga war a am nga nga sabab lu ko wutal aw fas wutal ab machine wutal aw jiwu wutal ab tool su bàq bi toolee su bàq bi toolee demal ji fexeel ba ji loo xam ne da ko lañ ji ma rafet na ko mën a bay na ko bay bay mu rafet su boobaa ñaan nga sabab lu nga loolu mooy li war ci soxla soo xam ne si da nga koo am te mu dagan waaye loolu lépp nga da koy def te fekk sa mbir bàyyi nga ko yàlla te am gerte te ñàkk ko lépp ba nga ko yàlla war nga def lii ndax mu yàlla la ko sant bu fekkee ni bi nag ñaan yi nga xam ne yépp ñaana nga ko teetam saablu nga li nga mën lépp def nga ko wut nga jiw woo gerte woo dugub ruuj nga bay ji nga bay nga bayaat nga ballarti nga déqi nga góob nga yàlla dogal nga am nga gerte ak dugub santal yàlla ndax kat moo la may te bu la muy woon doo am am déet santal yàlla aha amma ida daawta bi kulli ma taalamu min daawat wa badalta kulla ma ladayka min jahdin li taxqiqi hadihi alxaajati wa lam tataxaqaq ولكن كنت فوضت إلى الله جميع أمورك بما فيها هذه الحاجة فعندئذ يجب أن تعود إلى الثقة بالله تعالى. شوف كان دينك بلا نعم سمبولا خيت نعم يا أب. pour yàlla may la gerte ku bari ak dugub yu bari wala yàlla may la fas wala yàlla may la soxna soxla daal di nga am ñaan nga ko sa këm kattan dem nga it sabab lu nga ko sabab lu nga ko maanaam wut ngaw fas wut ngaw machine wut ngaw ab tool eh, wut ngaw jiw ji yàlla dogal saxut wala sax na bay la waaye yàlla dogal lépp nekk fëpp wala mu dee bi maanaam ñaan nga ci xeet ñaan yi nga am yépp sabli sawlu ngay tam xeer sabli nga am yëpp waaye nag la nga doon wut am tuwul la nga bëggoon amul rek waay ne sa xel dellu ci ne yow day da ngaa jooyloon say mbir yàlla te wóolu nga yàlla te xam nga ne yàlla day sa soxla si moom mu la ko fajaloon sëwu ko te itam yàlla kenn du ne dafa nay te def yàllaa gën a tabe ñëpp yàlla rek a tabe sax ginnaaw nag li nga ko doon ñaan moom mën na ko te tabe te tabe na bu baax nayul te joxu ko li ci des mooy nga am ci moom confiance te wóolu ko tane ku dem la ñàkk a jox gum ma ko ñàkk a jox sama yiw decee ne ku dem la su ma ko joxoon dana am fitna bi te bàyyi koo ju ma dul attan wala xañ gi ma ko xañ ku dem la ak xeewale ngi ci goo xam ne bii xaw ma noonu la ñuy wóoloo yàlla am ci moom confiance ne ko nag sans dugub ji ak gerte gi li ma ko doon doye moo doon dundale ko njaboot gi yàlla soob na la sabab lu naa aw waaye sa jaam laa maag sa njaboot maa ngi lay dénk sama bopp la dénk njaboot maa ngi lay ñaan nga yombalal lu suñu dund ci at mi ba nga fi jóg seet yeneen bunt yoo xam ne yu dagan la nga sàkku di te loo dundale njaboot gi waaye bu soog mukk te itam bul ñàkk confiance ci yàlla mukk bu fekkee ne di da bëgg soxna nga ñaan ñaan ñaan wala da ngaa bëgg ab oto wala place nga ñaan ñaan ñaan sottiwul wóolul yàlla dogal ci na li amul daal daa gënul ci yow ñàkk gee am am na xéewal bu ci ne wala yàlla di dabul wala am gi am na fitna bi ci ne di yàlla di tànqal noonu la ñuy wóoloo yàlla mhm. su ko defee nu yemale foofu waxtaan wi ndax mu bañ a gudd waxal nañ leen bokk ci farse mbir jaar ko ci yàlla nus koy defe waxal nañ leen tam li xadis bi ëmb ci kuy jàng fatiha ci julli ndeke ma nga boole di sagg yàlla di sant yàlla da nga ne alhamdulilahi rabbil da ngay sant yàlla te yàlla defal na la ay xéewal yu bari da nga ne arrahman arrahim yi da ngay sagg yàlla te itam na nga teewlu ne yàllaa ngi wax ak yow ndekete bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin wala say limaan wax ko am na lu yàlla wax te yow déggoo ko doo ko dégg ndax xajul ci say nopp waaye nag da nga koy teewlu parce que yooyu ñu wax yépp boo koy def làmmiñ wi da ciy jaar waaye itam na xol ba teew bu fekkee làmmiñ wi daa wax alhamdulilah rabbil alamin arrahman arrahim yaa ngi sant yàlla ak di ko tagg tax làmmiñ waa ngi ciy jaar waaye xel mi nekku ci naroo ko yow naroo tagg yàlla jubluwoo ko itam da ngaa mokkal fatiha dong di ko tagg waaye waaye jubluwoo ci tagg yàlla xamoo loo ci ngay wax lan la jéemoo koo xam kon kat du nekk tëgg yàlla tey du nekk sant yàlla nit ki ñaar nit daal di jàng di julli kenn ku nekk di fari fatiha kii mi ngi sant yàlla te kee sant ko te bokk lu ñuy wax kii mi yàlla te kee ko kii ngi màggal yàlla te kee màggalu ko te ñoo bokk lu wax te xol ya la xam nga leen bu ñu faboon ay baati anglais wala ay baati chinois bind ko bindal la ko ci arafu alquran xëy ko ba nga mën ko xam nga dafa doon ak cinq cent soixante ba nga ba nga mokkal cinq cent dee wax muy tekki xamoo ko kon yow waxoo wax ci xol la ne boo ne alhamdulilah rabbil alamin boo ne loolu nga wax xamoo lu muy tekki moo yow mu ne cinq cent soixante ñoo di sabboo di mbokki jullit yi fatiha danoo war a xam benn baat bu lu mu ëmb loolu la ñaan yàlla tawfiq nu toog fii leeral leen ko benn aaya par aaya fa ca suñu xam-xam toll yal yàlla may tawfiq ñu def ko ba mu mat te yàlla jéggal nu suñuy bakkaar xiir nu ci moom yàlla gën noo tëbb nu gën koo bëgg ñu gën a xam ne adduna fii dañ koy jaar rek kenn ku nekk suñu bi ñu ñaata at bëgg a dund mu wax la mu bëgg kenn ku nekk ci yéen ci ñun suñ ko ñun ñaataat nga bëgg dund mu ne téeméer dan Sanders Ndaa Sanders na ma démb yàlla na nga dund téeméeri juróom fukk ma ne ko ah xanaa si téeméeri at ak juróom fukk ma ko amee danaa sonn de danaa sonn de téeméeri at ak juróom ko am waaw waaye yàlla na nga dund na nga dee mooy yàlla na dee bi ndax téeméeri at ak juróom fukk bu matee lu mu nga dee kon nag da ngay dee rek ci dund téeméeri juróom fukk ak ki dund téeméer ak kese ak ki dund juróom fukk ak kese ku ci dee nit bi lay jëkk am ci sa bàmmeel da am ci xéewal mbaa ci métit ak ci ak ci fitna loo xam ne dana wecc ci mboolem at yi nga dundoon suuf kon nag adduna jarul àllaaxira adduna jarul àllaaxira kenn ci ñun bu mu fab àllaaxiram jaay ko di ko jënde adduna nan leen xam ne yàlla dina fee andi pour ñu jaamu ko nan jàng nan la ñuy jaamoo yàlla nan la yàlla bëgg ko jaamoo ñu ñu garte suñu bakkan def ko muy suñu itti ju jëkk suñu itti ju mag leneen lu ñëw gannaaw bi ñu xam ne loola saran la waaye sarat bi mag ji mooy jaamu yàlla moo tax yàlla indi nu fi ñu jaamu ko bu baax boole di ko jégglu di ko sant bu ñuy sareeti fatiha nan xam li ñuy wax ci fatiha lan la bay ñoo bàyyi fatiha insha allah taala bu dee soob na yàlla yàllaay def bu dee soob na ko daanu ko firi benn baat par baat firi ko dana aaya par aaya ba li ci nekk lépp ci ay xam-xam lañu ca man ñu génne ko suñu ko dee jàngat yi ngeen xam li ngeen di wax xam ne yàlla ngeen di waxal wax di jóge ci seen làmmiñ ak seen xol te bañ a doon ay intention yoo xam ne xamoo lu mu tekki yaa kaset bu jàng yem loolu nañ ko baax te jéem a xam li muy wax ci julli lan la